Ah, le promoteur du continent ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Ibrahima. lu waral teewaay bi fii ci arine nationale. waa tey nag Ibrahima xam nga arène nationale bi yàlla dafa dogal. biñ ko fi defee ba léegi. Euh, musuñu fi tëgg. donc ñu doon ruumandaat di xool. ñu ne daal di gën a sage. mooy ñu ñëw déplacer suñu bopp. Mm-hmm. Euh, di remercier en même temps le président Thierno Ka qui a voulu vraiment se déplacer bàyyi léppam ñëw ànd ak ñun fii pour vraiment euh, visite guidée bi ñuy def mu jàppale ñu ci ba pare xelal ñu aussi ci liggéey bi. visite guidée bi bu ngeen ko paree yan conclusion ngeen tiré par rapport ak arène bi. conclusion yi ñu tiire mooy euh, gis nañu ni ñu liggéeyee arène bi donc yàgg nañu aussi di tëgg ay événement donc xool nañu. nombre de places yi xool nañu ni ñu leen di dispatcher gis nañu ñun personnellement ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee donc yora aura euh, trois catégories de billets y aura li ñuy wax euh, la tribune amateur boo xamante ne on le vendra à mille francs li ñuy wax annexe loge dinañ ko jaay dix mille la loge présidentielle à quinze mille li ci des nag muy euh, tribune boo xamante ne mooy pour supporters yi mooy lu vert li ak lu jaune li loolu dinañ ko jaay à trois mille francs loolu la ñu décidé mais terewul comme ni ñu ko tàmm defee à l'accoutumée dinañu ñëw fii ak les service de sécurité ñi nga xamante ne ñoo yor sécurité wu nit ñi fiy ñëw muy gendarmerie ak police toog ak ñoom fii def fi séance simulation comme niñ ko daan tàmm defee ci événement yu mag yëpp ba pare daa di xool li nga xamante ne euh, moom lañ nar a def ci arène bi gën a aussi leeralal nit ñi fësalal nit ñi mais am naa yaakaar ne daal bés bii ñu jëm nii ñun amuñu ci benn xel ñaar eh, niñ ko nar a liggéeyee yaakaar naa ne képp ku fay sa billet dina méngoo ak fi nga toog incha allah. est-ce que vert ak jaune bi dina dina dina mën a contenir euh, supporters yi yëpp parce que dafa mel ni xaw na tuuti de. waaw euh, Ibrahima xam nga yàlla moom du matale lépp. Euh, ñun moom li ñu mën mooy xam nañu combat bi ñu yor xam nañu niñ ko nar a liggéeyee xam nañu fi ñu jëm aussi donc dinañu ibbi bunt yi bu teel bu jour ba fa mu yem nag dinañu xam ne foofu la yem ndax moom duñu fi dugal loo xamante ne mënu fee dugg ndax pour des raisons de sécurité yaakaar naa ñi yor bunt yi sax duñ ko nangu donc daal bu demee ba fees rek incha allah ñu tëj bunt yi bu soobee yàlla. arène nationale bi ñu ngi wax en problème de sécurité comme ni nga koy waxee nii mais est-ce que li nga gis yow tey dal na sa xel. xam nga nag Ibrahima tey ma wax la benn affaire déjà un ñii nga xamante ne ñoo tabax. Euh, arène nationale bi déjà ñoom seen dëkk boo fa demee discipline la ñu àndal bu ñuy jël oto sax dañuy ran kenn du buuxante donc tey je pense que bi ñuy tabax aussi yaakaaroon nañu ne xëy na képp koo xamante ne tey yaa ngi ñëw ci stade bi bu la sécurité bi ne taxawal fële fii nga war a jaar noonu ngay def mais tel nag n'est pas le cas au Sénégal mais ñoom il n'était pas censé le savoir aussi donc peut-être loolu xëy na mun nañu rattraper ko dans l'avenir bien que sax c'est pas méchant puisque sécurité bi bu doyee ci biti loolu amu ci dara par contre euh, am na ay détails yu ndaw yoo xamante ne loolu mënul ñàkk ah, loolu ci àdduna lépp loo gis dañ koy parfaire donc euh, dinañ ko yaakaar naa ne euh, ñi xaran ñoo nekk ci ministère bi CNG bi ñi fa nekk ñoom ñu xam làmb lañu donc ñoom ñëpp dinañu profiter def seeni i def seen i amélioration ñun suñu xalaat ak yàgg tëgg ci làmb dinañ leen ko wax ñoom nag. à appréciation ñoom itam ñu xool ak seen i xalaat lépp bu ñu ko dëxëñee am naa yaakaar ne mun nañ fi def loo xamante ne sénégalais yeeg amateurs yëpp dinañ ci gis seen bopp incha allah. yaa ñëkk feesal stade Léopold Sédar Senghor ak combat Balla Gaye de Gris Bordeaux lamb mosul feesal Léopold Sédar Senghor est-ce que mën nañ xaar nga ñëkk feesal arène nationale. waaw Ibrahima euh, loolu moom euh, am rafet naa ci njort ndax ñun ay jullit lañu ay taalibe lañu lépp li war pour mu fees dinañ ko def incha allah. Euh, bu dee ci wàllu bànneex bu dee ci wàllu événement bu dee ci wàllu combat yu neex lépp dinañ ko teg pour làmb ji fees la ca des nag dañ koy bàyyi ak loxo suñu borom ndax ñun duñu yàlla duñu yónnant waa loolu daal mais li ñu war moom pour mu fees pour mu neex dinañ ko def bu soobee yàlla. Euh, combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux gis nañ ni ko bii yaa ngi ko commencé jaay le jour J. Hmm. est-ce bii yoon amateurs yi ak supporters yi mun nañ xaar teel a jot seen ay billets. waaw Ibrahima euh, ñun ay professionnel lañu combat bu mag bu ne tëgg nañ ko fi d'ailleurs billets yi dinañu changer sax euh, niñ ko doon doxalee parce que d'habitude dañ ko doon euh, def yenn genre billets ak hologramme ak yooyu mais bii ñu ngi liggéey ak société bu mag boo xamante ne bitim réew la ne incha allah billets yi ñu nar a defal daal am naa yaakaar ne buñ ko jaayoon une semaine avant sax kenn mënu ci dara. donc mais dinañu xool selon les demandes selon les possibilités ñu xool ni ñuy def daal ba wax dëgg yàlla nit ñi teel a jot seen billet parce que aussi bu dee loolu mooy arranger supporters yi dinañ ko ndax billet yooyu kenn mënu koo falsifier. mu am lu ñu jaaxal loolu ci li ñu ko laaj lu tax ay combat am farataalu di am ay parrain. waaw parrain nag mosuma ko dugal parrain yi may mos dugal yëpp du parrain pour wut xaalis parrain la yoo xam ne dafa fekk ñoo xam dañu liggéey pour dëkk bi am lu ñu def pour dëkk bi ma jël leen parrainé leen wala boog ñu doon liggéey pour làmb dem ba nit ñi fàtte leen ku mel ni vieux cinq cinq ku mel ni Kumba Gawlo bi nga xamante ne moom suma xarit la bi affaire yi mettee dafa jàpp sur tous les côtés ñooñu dama leen di pare ne parce que du pour xaalis du pour dara mais pour delloo leen njukkal la euh, bi Sénégal tàngee crise bi bare fii Casamance ak Sénégal aussi ca laa jël suma tànk dem ba euh, Casamance seeti Abbé Diamacoune Senghor waxtaan ak moom ba indi ko fii ci dakaar mu ñëw présider drapeau de la paix donc man ci yooyu laay yëngatu moo tax du ma dugg ci ay parent mais contre ma ñi koy def ndax ñi koy def aussi ku nekk ñoom ñoo xam seeni raison donc daal wax dëgg yàlla mais man moom loolu bokkul ci sama éthique terewul nag combat bi dinaa ci parrainer ñu bare ñoo xam ne dama am fu ma jaar ak ñoom ci làmb notamment ay euh, ministres yi fi jot a jaar ay kilifa yu mag ay ñu mel ni ñoom góor a góor a photographe sunu làmb genre yooyu man góore damay farlu bi may am ay douze ans treize ans di seetaani ay match football dama ko doon fekk foofu ci biir tribune yi mu yor ay billets di ko jaay di ay astafurla ay photo di ko jaay kon góore yàgg na ci affaire yi yàgg na ci làmp te nii mu mel ni laa ko xamee musuma ko dégg ci coow musuma ko dégg ci histoire musuma ko dégg ci xëccoo genre nit ñi ak ñu mel ni ñoom jour boobu aussi dinañ leen ci décorer décorer ci ñi ma àndaloon ñëpp ñoom baabu ñoom Alioune Sarr ñoom président Thierno Ka ñëpp am na ñu bare ak surtout nag surtout surtout mon ami mon frère bi nga xamante ne moom si liggéey bu jéggi dayoo la def mooy Ibrahima Sarr bi nga xamante ne moo nekkoon secrétaire administratif u CNG kooku moom c'est mon ami personnel yàgg liggéey bi li ñu gën a graaw ci liggéey bi ma liggéey ci làmb moom laa ko àndal ci combat yi gën a mag ci làmb moom laa ko àndal te def ma mus yombal nag neexul yàgg naa xuloo ak CNG ñuy coow di muy metti suñu diggante mais loolu yëpp pour mu baax la woon rek ci seen côté ak ñoom mais am na loo xamante ne aussi naa leen ko révélé tey yàgg naa fi tëgg combat yu mag a mag a mag a mag fii ma war a joxe reliquat CNG ne ma bàyyil ba combat bi passé nga joxe ko loolu dinaa leen ko révélé te yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne am na fii mais cest boobu temps ngor moo amoon ci làmb ji am nga dafa amoon ngor boobu temps boobu temps dañ daan ànd ay yëri jaxate ay paa jaw ay manager yu yu xaw a mag yu yu yu fi nekkoon ay kilifa la ñu woon boobu taa làmb doo ci dégg yenn coow yi làmb doon nañ joxe milliards te doo ko xam donc loolu euh, man mooy ma sama vingt ans lay feete donc dama koy wax pour promoteur yii xamante samay doom la ñu jamono yi yi fi ne ñu jéem a góorgóorlu waaw ñu jéem a góorgóorlu Ibrahima làmb ji du caaxaan du dem rek dajale sa benn ay affaire joxe ay billets no nañ bàyyi loolu ku nekk fa nga tollool ñëw laaj ku mel nii man na nga am grandeur booy tëgg làmb ñëw fekk Luc Nicolaï xam ne événement bu ne tëgg na ko fii nga ñëw ne ko ah père wala nijaay wala dama am lu may tëgg dama bëgg nga xelal ma ma ne la defal nii defal nii defal nii jaaral fii jaaral fii jaaral fii ndax am na lu ma ci xam bu dul lépp itam am na lu ma ci xam. ñu gis ay parachute ñu gis ay fumigène gis nañ sax pay per view euh, Luc Nicolaï pourquoi autant d'innovation waaw non euh, dafa am loo xamante ne nit du bind boppam Ibrahima man yàlla moom ma bindee noonu li ma mel noonu laa mel munuma ci dara su ma ko bëggoon changer aussi mun man nitu défi laa tey bala nga doon xam tey ñu ne lii nit mënu ko foofu ngay comprendre xam nga may njëkk tëgg gala fële stade Léopold Sédar Senghor dañ na woon kii wérul dof la yaa ngi dégg mooy Moustapha Guèye ak euh, Lac de Guerre maam Njambaan Bombardier ni ak euh, Xaadim Njaay ma feesal Léopold ñëwaat dàbbaliwaat tëggaat fa encore Gris Bordeaux ak Baboy mu feesaat du dëgg. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 moom moom xam nga fees am na waaye fees dell am na boobu moom dafa fees dell ba ñu arrêté jaay bii kon euh, dama ciy sant yàlla mooy li ma man. am na loo xam du ci man ci suñu borom la man nag dinaa sabab lu def li ma war yëpp pour mu mel noonu mais la ca des ngirum yàlla la du ci man moom laay wax toujours gars yi boo seetloo toujours ma ne leen du ci man ci suñu borom la foofu laay waxee ak nit ñi. est-ce que Luc Nicolaï prépare sa relève. waaw bala may dem ci loolu Ibrahima boo ma ba permettre dama buggoon wax tuuti ci arène nationale bi parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu li ko dalee ci président la république ba ci gën a suuf ñëpp ay sénégalais réew mi ñoo ko bokk lépp lu ñu fiy def dañ ko war a waxtaanee mais je pense que tey je suis bien placé pour wax ci arène nationale bi ndax kuy tëgg événement fii yaakaar naa ne am na lu bare lu ma def ci événement fii ci réew mi mais lii ma gis de Ibrahima lii nii ma gis nii lii bijou bi man de honnêtement sincèrement gisuma ci benn problème yàlla rek moo tax may wax. parce que nga ñëw di tëgg foo xamante ne indi woo yow danga doon indi bâche di teg jël suuf di dugal wuti ay kalanka lu ne nga dugg ci sono lépp nga fekk ko sur place chaise yi mel ni mu mel fii mel ni mu mel je pense que nag nañu wax écran géant lépp am fi je pense que euh, dañu war a delloo siwaat suñu xel ndax état mënut a def lépp ndimbal des koy fekk ci loxol borom ñun ñoo décider kenn jàppul suñu loxo forcé ñu ne dañuy tëgg làmb fii ku mu neex tëgg ku mu neexul të bul tëgg yaa jël sa décision opté jël sa li nga yor ne damay dem tëggi làmb mais boo nga xamante ne yow liñ la jox mënoo cee tëgg mais bul fustiger parce que loolu baaxul day yàq xelul sénégalais nit boo doonee porteur de voix ñu lay déglu looy wax da koy xam parce que am na loo xam ne boo ko waxee bu dëggul bu dul dëgg parce que du dëgg daf la arrangé wul nga wax ko loolu rek mun na indi laamisoo ci xelu nit ñi ba jaxase lu bare bare bare bare te loolu baaxul réew mi ñoo ko bokk Sénégal réyul dafa tuuti quinze millions am na dëkk yoo xam ne boo fa demee ne leen Sénégal sax xamuñu ko boo demee ne dañ boo demee États-Unis laaj dañ naan fii sax xamuñu Sénégal Sénégal dëkk bu tuuti la loolu la gars yi war a fàttaliku ñu bokk ndey bokk bàyyi Ibrahima mais arène bii man gisuma fi benn benn benn problème dinaa fi tëgg dinaa ko sécuriser te dina egg ci jàmm ak salaam te dinañu gis bu soobee yàlla incha allah relève bi waaw relève bi ñu ngi xool ñu ngi xool parce que làmb aussi ni mu tëddee jamono yi am na nu muy continuer aussi yaakaar naa continuer ci il faut ñu toog seetaat ko mais je pense que comme ñun ay mag lañu léegi ci làmb aussi xëy na dinañu toog ak ministre bi toog ak waa CNG toog ñun ñëpp joxe suñu xalaat huis clos nekkul lu ñëpp di yéeg ñu toog waxtaanee làmb xool lu koy suqali parce que loolu mooy affaire bi am na loo xamante ne protocole la lu ñëpp di fekkee loolu dafa am. mais am na loo xamante ne waxtaanu biir néeg la waxtaanu suuf la dinañ ko waxtaan ba xam nu ñuy dimbalee suñu rakk yi dimbalee mbër yi dimbale ñu des ci làmb mais incha allah man tuddaguma ko relève parce que man génn guma làmb damay feete suma vingt ans mais génn guma maa ngi ci làmb ji toujours mais yooyu yëpp du ñuy waxtaanee la je pense que incha allah dinañ trouver une solution. làmb métti ak njaboot bi. Mm-hmm. njaboot bi sa njaboot. Mm-hmm. est que ñu ngi dund lu metti ngay toog ba ay deux heures trois heures du matin yenn saa yi di ñibbisi. Mm-hmm. lépp ndax làmb. loolu est-ce du la marqué. loolu nag bu njëkk ba la ma doon marqué dëgg bi may tëgg ay combat yu garaaw yooyu ma doon tëgg ay Yékini euh, bombardier drapeau de la paix bi may tëgg ay Tyson moor Fadam yooyu mu doon événement yoo xamante ne da nga daan toog une semaine doo dugg sa biir kër une semaine ferme. sama njaboot nag moom euh, xam nga ku opte aussi ànd ak ku mel ni man foog nga am concession yoo def mais xam naa ne musul yomb ci ñoom musul neex ci ñoom wax dëgg yàlla musul yomb ci ñoom musul neex ci ñoom mais vraiment euh, daal dama leen di sant di leen gërëm muy samay soxna di sama famille yëpp waaw ak euh, samay yaay ñoom ñëpp daal parce que aussi accompagné nañ ma ci li ma doon def waaw ba yàlla dogal li mu dogal tey waaw lutte simple bi ñu gis ne da nga daan def journée yu bëri. Mhm. di di dem si sous région bi di tëgg mais ñu gis ne ba mu saison bu ubbee ba tey ñaari galaa nga tëggagum te mbuur nga ko def. Mhm. lu waral loolu. waaw li waral loolu mooy euh, ren dafa xaw a dafa xaw a compliqué parce que ren dama nekk ci benn liggéey boo xamante ne dafa jotewul dara ak làmb ren dama ne sax du ma tëgg mais mënu ko ñàkk def ndax munuma seetaan xale yi toog bañ a bëre. Euh, boo xoolee ñetti combat laa tëgg grand combat ma mujj leen boole benn bi rek mënoon naa ko def grand combat tëgg yeneen combat euh, dence la nga xamante ne moom mais dama ne mbër yi foog ñu bëre donc on a pris six lutteurs yoo xamante ne fay nañ leen xaalis pour ñu ñëw mun a bëre mais lutte simple bi bàyyiwuma ko sax mais honnêtement ren dafa bare ay événements yu mu tombeel aussi élection présidentielle tombe ak euh, bare na daal ay événements yu rax ci biir koor gi nii déjà ñu nekk nii donc daal mais je pense ko a fait trois trois galas de lutte simple ak deux galas yoo xamante ne mais lépp comme ni nga wax mbuur lañ ko defee quoi. Hmm. lépp mbuur lañ ko defee parce que sànq da ngay wax ba tudd les promoteurs yi est-ce que li bokk na ci association promoteur yi nga xamante ne Pape Abdou Fall mooy njiit bi. non man maay président d'honneur bi ñu defee seen affaire ba pare la ma Pape Abdou Fall woo ne ma def nañ le président d'honneur de l'association waaw noonu la mbir mi demee. noonu la mbir mi dem mhm. sànq ñu dégg sa wax ngay wax ba ne pour pour promoteurs yi tey jaadu ñu lay seet si parce que mën nañ ne tey vétéran nga si en la matière est-ce que tey ni ko Ibrahima waxee rek pour relève est-ce que si promoteurs yu ndaw yi yaa ngi si gis koo xamante ni tey mu ngi innové wala mu ngi jéem nga siy gis sa bopp comme yow ni nga daan test si boobu ngay toor mu métti woon lool. waaw loolu nag honnêtement euh, loolu ci Aziz laa ko gisoon ci benn moment ci Aziz laa ko gisoon. muy topp ci samay tànk di def li may def waaw honnêtement bu dee yàlla rek moo tax may wax parce que Aziz dama toog benn jour ngañ jaañ boobu temps mu ngi nekkul sax RFM ma fàtte ba am na fu mu nekkoon xaw ma boobu temps Sport FM la tuddoon xaw ma ma toog teeru bi mu jàpp ko ñëw ba ci man ne ma dama bëgg nga jàppaleel ma ko yaa ngi dégg mu doon xale bu yaru tamit Aziz xëy na nag affaire yi business day dem fu muy toll business la rek mais en tant que nit nit nii rek man moom amuñu benn problème on a de très bons rapports fu ñu gisee dañuy kaf di ree di waxtaan di kii mais nag business business la politiciens yi ngay gis nii ñuy reyante fii assemblée di reyante ci terrain bi dañuy toog di remante di reerante di di kii affaire bi business bu taxawee business la mais nag en tant que nit loolu ngay wax noonu ci Aziz laa ko gisoon honnêtement mm-hmm. waaw. pay per bi mu fi njëkkee am amoon na lacune Mhm. deuxième fois bi euh, am na tuuti satisfaction parce que am nañu jëndoon sax te jotuñu ko mais gis nañ ne remboursé nañ leen. Mhm. mais est ce que pour cette fois ci yéen a ngi préparé pour loolu noonu yëpp tey pour inconvénient yeeg wala yéen rëq-rëq bañ si am parce que xam nañ Sénégalais ni ñu ko xamee rek. Mhm. wax wala critique lañ gën a mën que ne tey pour apprécier nit wala. non xam nga sax euh, lacune man dama ci d' accord waxoon naa ko ci conférence de presse ma doon def noonu parce que gis nga tey loo gis rek dafa am lu ko lal. loo xamante ne moom moo ko indi xam nga tey euh, mooy li ñun ñëpp sénégalais lañu fii ku nekk yor nga smartphone di xool léeg la nga toog bëgg woote sax du jàll léeg-léeg ngay xool i benn image yu YouTube mu coupé donc yooyu am na yoo xamante ne man mënu ma ci wax parce que problème mu réseau la benn ñaareel ba dafa am société bu ñu naan Buzz Pro mu am koo xamante ne moom moo ko jiite ma jël li may liggéey man teg ko ci loxoom moom. et je pense que bii nii am na sax système bu bees innovation bu ñu def boo xam ne fii Sénégal amatul jënd code carte ngay jënd comme carte téléphone moom ngay xoos gis code bi dugal ko sa biir téléphone xam nga booboo gën a yomb parce que effectivement man mii di wax ak yow man affaire téléphone aayu ma ci dama ma ne demal jëndi code xaw ma nuñ koy jëndee mais nag boo yoree carte comme kuy dugal crédit téléphone noonu lañ ko nar a liggéeyee incha allah. prix code yi gis nañ ne da doon. cher wala da doon évoluer au fur et à mesure ni nga doon tëgg. Mm-hmm. est que bii tey mën nañu xaarandi mu gën a cher wala bii tey ak sa vingt ans yi da ngay da ngay. non non bii moom bii moom du du du du kii du jafe du jafe du jafe dinañ ko jaay comme prix yi ñu doon jaayee rek je pense que ñu ngi ci dernier réglage yi waaw donc daal waaw alhamdulilah du jafe noonu prix dina baax. événement bi la gën a marqué nga xamante ne tey tu t'es surpassé nga nga nga sant ne tey daal vraiment def nga loo xamante ni yow si sa bopp am nga si non man nag combat bi ma def mu gën ma marqué dafa bare ay facettes cest à dafa am yoo xam dafa may marqué ci wàllu événement am ma yoo xam dafa may marqué ci wàllu social am yu may marqué aussi ci waaw ci ci daal dafa bare façon mais bi ma marqué en général mooy Modou Lo Balla Gaye bi passé nii déedéet bi ma tëggoon en 2010 parce que combat boobu dama ko tëgg ba pare sponsor bi woo ma à l'époque ne ma yow dama la jox suma xaalis ba pare nga jël ay combat fekk ne mu am beneen promoteur bu tëggoon Tyson ak Yékini ma dem ba ci biir affaire bi jaxasoo ma woo sponsor ma ne ko temps nga ma jox ma ne waa ma ne ko bul ma fay toogal nga xool combat bu melul ni mu war a mel ba jéggi dayoo bul ma fay mu ne ma yaa wax loolu ma ne ko ma bindal defal ma signé ñu dawal bi ñu paree dañu dem ba moom ci boppam daf ma dolliwaat xaalis sponsor bi ndax am satisfaction ndax satisfaction. combat boobu marqué na ma ci bañ koy signé ndax amul gàllankoor bu ñu dajul ci combat boobu pour signé ko amul. combat boobu nit jóge na di ñëw fekk si ma mbuur muy duubal lees ak baabu bi ñuy toog manager ñëw pour signer si ko ñu ngi jóge mbuur sept heures demi lañ ma woo ne dañuy jaar jël donc ñoom ñu ngi jóge neuf heures ñu ngi egg si mbuur sept heures ci ngoon ndax ay dog-dog pour signer ko rek. signé ko rek ak leneen ak yeneen ak yeneen signature boo xamante ne am na sax loo xamante ne kenn mënu ko wax ci caméra mais Basirou Babou ma la toog Mbaye Diagne ak sama ñoom xam nañu lañ def ci làmb xam nañ lañ daj ci làmb xam nañ liñ daj ba làmb toll fii muy si suñu famille di suñu alal di ci lépp lu ñu daj cest diir nag waaw àdduna moo bindoo noonu waaw sëgam yonent bi la kenn bàyyiwul waaw ñun moom nañ sant yàlla rek. mu mel ni temps yooyu xëccoo bi rivalité bi xëccoo combat am leneen lu si doon pour gàllankoor rek. xëccoo bi dafa neexoon boobu boobu dafa neexoon xëccoo bi ay mbalag la woon dafa neexoon bokkut ak léegi xam nga léegi dafa xaw am tuuti animosité am ay coxor ak yooyu ay bokkul boobu xëccoo la woon mais après bu ñu xëccoom lu mu ñàng-ñàng dañuy retrouver wu joxante loxo ree kaf xam nga c'était c'était vraiment une concurrence loyale waaw bu jo xeex jotee ñu xeex. bu ku am amee félicité sa morom loolu moo fi amoon mooy li ma lay wax sànq ci CNG dañ daan cooki man ak ñoom ba mu metti carrément mais lépp pour lu doon defar rek la waaw. léegi mën na tëgg combat mu mu jafe si moom wala mu metti ba mu wuti ndimbal si promoteur wala si nit pour pour tëgg combat. ah loolu de yàlla dogalagu ko nag wax dëgg yàlla mais tëgg naa làmb affaire bi diis lool ci fin bi. CNG ni ma la ko waxee mm-hmm. ñëw toog accompagner ma te kenn yégul ba ñu pare làmb ji loolu moom am na moom loolu moom am na accompagné ñu tëgg làmb ji te kenn yëgul moo tax ñiy fustiger CNG xamuñu man dama daan xeex ak ñoom cookeeg ñoom mais ay liggéeykat lañu ay nit rek lañu nag mënuñoo paase nit waaw am na yu bare yoo xamante ne ñoom dañuy déconné moom wax dëgg yàlla mais nag am na ci yoo xamante ne entre nu moom ay jàmbaar lañu moom wax dëgg yàlla waaw. waaw de la fin rek. waa di sant ñëpp. di wax ne vingt ans de Luc Nicolaï laa bëgg a feete dafa bare nag lu mu und ëmb loolu parce que fii lu mu dee dee ku ci ne toog nga sa télé ma bégal la nga tekk France nekk États-Unis sedd bi jàpp la ma tëgg làmb yoo xam ne delloo si na sa xol nañ waxante dëgg am na ñu tëdd hôpital ma tëgg làmb événement yoo xamante ne ci benn bu dee benn trente minutes wér nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc vingt ans du caaxaan dama sacrifier suma àdduna sacrifier sama bopp pour Sénégal sacrifier sama bopp pour mbër yi j'ai fabriqué des yoo xamante ne ñu ngi leen 4 x yor ay étage di ko di di dëkk di dem kon am na loo xamante ne yàlla ci sama loxo la ko jaarale du sama ngóora du sama dara borom bee ko jaarale ci sama loxo kon vingt ans yi damay laaj li ko dalee président de la république ba ci suuf ak ñëpp nañ ma ci jàppale parce que ku ci ne am na fu ma jaar ak yow ku ci ne bu dee benn waxtu am na fu ma jaar ak yow kon ñoom ñëpp dañ ma jàppale ndax vingt ans la boo xamante ne boo ko dindee ci samay at dama ko sacrifier dund ko pour làmb dund ko pour làmb egsi fi mu egsi tey kon je pense que na ñëpp dugal ci seen loxo pour sama bés bi réussir képp kuy sama am di jàmm képp koo xamante ne sénégalais nga maa ngi lay ñaan nga jàpp ci bés bi pour mu vraiment réussir liñ ciy xaar ñu gis ko si maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax wasalaam yàlla na yàlla jàlli jàmm ci Sénégal ci réew mi simla